fii la ñuy tiitaroo parce que fii la ñu juddoo màggee fii suñu lépp fii la di nuyu imam encore bu baax a baax wax këram jàngee naa fa alxuraan wax dëgg yàlla lu am suñu kër yi muy bànneex wala safaan moom day taxaw bu dee ku juddu moom mooy ñëw tudd bu dee ku dëddu moom mooy ñëw taxawu def lu mu ci war yëpp ñaanal yàlla yokk taxawaayam sàmm ko sàmm njabootam waaw tey nag tànk yi moom ko tànku mbégte la rek parce que fii lañ dëkk lépp waaw lu ñuy def rek ma ne ko fii la war a ciitu ba tax na rek dañu amoon incha allah yéen indi fi benn oto Corbière bi nga xam ne comme ni wax rek àdduna moom bànneex ak nakar ñoom ñoo ak ak ak ñoo ànd. ba tax na xam ku tabax juma def morgue am na li nga xam ne di ko soxla ba tax na rek ñun ñëwoon def suñu partition incha allah ci indi oto bi ak teg ci benn enveloppe rek incha allah te dina gën a yaatu vraiment daal kontaan nañ bu baax. ci koor lañ nekk àjjuma yi dafa xat lool lool lool lool tax na xam naa bëgguñu jotaay bi yàgg ñu wax rek ñu jox joxe caabi ñu dem incha allah. mbokk yi yéen a ko déggandoo kàddu yaa ngi noonu euh, Mamadou jërëjëf Lo. yal na yàlla fay la yal na yàlla sàmm la li alxuraan naa fa amma bi nihmati rabbika fa hadis defe naa loolu rek buñ si taxawoon rek jeex na tàkk wax ji jeex na jërul ñu lay sant di la gërëm li nga def sa bopp nga ko defal li nga def Baye Ibrahima ba mi nga ko defal li nga def Baye góoraloo nga ko defal tey fa mu tëdd xolam ba sedd na guyu la ko seddal nag mooy lii nga indi mooy korbeyaag bi xam ni tey doomu aadama yi ni muy dundee noonu la ñuy génne àdduna nga yombalal nu lan daa dem di ko luye ji di ko jëli méeréeg di ko luye jéeg di si def cent mille di dem si àll beeg di dem fu ne nga wàcceel nu ko kon loo mag yi ji yëpp nee na la jërëjëf ku deful dara nag doo dégg jërëjëf waaye lii nga def yàgg ngaa jëf waaye tey jii jëfal nga nu rëy na ci ñun Pape Ibrahima nee na mi ngi laa sant mu ngi lay gërëm yàgg sa bokk yëpp ndax mën nga koo defe nu la neex mën nga koo yóbbu fu la neex grand Aziz waaye mu jël ko ànd ak yéen ngeen ñëw encadré ko mu andi ko fii rëy na ñun Aziz yàlla mi am fay yàlla na la fay Baye Ibrahima nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mouhamadou Lamine. nee na Modou Lamine. yàlla fay la. nee na yàlla na yàlla fay la. doom ñaar la. nee na doom ñaar rek la. ki ngay tiitaroo. ki ngay tiitaroo. ak ku lay ak ku lay tiital. ak ki lay tiital. am nañ ay doom am nañ ay doom boo leen seenoon boo leen seenoon sa xol bi sa xol bi ak sa fit bi day def rëf-rëf day rëf-rëfi gaawal kat yi xaw ma lan nga indi waxal kat yi gaawal nga wax lan nga indi kat xam naa ne. lan nga indi da ngaa def foofu kat lu baaxut. da gaawal nga wax te xam ni da ngaa def foofu lu baaxut. xam nga doom boobu. xam nga doom jooju. yàlla moo la ko wërsëgal. yàlla la ko wërsëgale. bëggoo ko jur waaye bëggoo jur doom joo xam bu ko séenee ko eh gaawal xanaa da ngaa defati lu baaxut. am nañu ay doom. am nañu ay doom. da ngaa tiitaroo da nga leen tiit da nga leen tiitaroo ñooñu. dañuy tiitaroo ñooñu. Paa Ba. Paba. foo dëkk. foo dëkk. unité 10. xam nga Modou xam nga Modou Lo. ma ne ko maa ne ko sama doom la. loolu loolu mooy tiitar bi. bu boo bonoon. du ko tiitaroo du la tiitaroo. maa ngi ko sant yàlla Modou ñu ngi lay sant di sant di la santal bu baax yàlla. xam nga lu tax mu ko yàlla. nee na xam nga lu tax mu sant ko yàlla nag. lépp loo am lépp loo am. bu yar amu ci. yar amu ci. bu yar amu ci bu yar amu si yar amut dara amu ca. même combat. Modou Lo même combat. boo ba bi muy bëree boo ko seetee boo seenee moodu Euh, du def dara it lu reewande wala mu def dara lu jéggi chart yi li nga xam moom lañ ko moom lañ ko tënk li mu indi rek te loolu la ne bu loolu jeexee mu dem yoonam doomi inti dis nga nee na lii mooy àdduna ñu ngi lay sant Moodu di la santal yàlla imaam nee na mi ngi lay tiitaroo parce que démb am na ku ma ngi ànd ak sa doom Amadou Ba. mi ngi ànd ak Ba. ñu ngi ngi ànd ak forte. ñu ak forte man de kontaan ma ne kon sama xol sedd donc ah Modou dem na ba foofu. nee na Modou Lo dem na ba ci Ba. maa ngi gën a kontaan. na noo kontaan. sa doom sa doom. bëggoo ci moom dara. bëggoo ci moom dara. lu dul maanaa nga dëgg ci moom la am maanaa. lu dul rek nga dégg ci moom lu baax rek nag. maa ngi ko sant yàlla. maa ngi leen koy sant yàlla.

ñoom ñëpp na la jox àllarba xam nga lu tax imaam diglu ma xaaral ma ñëw rek xam nga lu tax xam nga lu tudd da tudd Modou jigo ko léeg imam imaam da tudd um la nga màgg doo doon dara élage i barke Seydina Mohamed waaye interdis li nga xamante ni moom lañ bëggan Youssou Gueye muy le roi am nañ ay roi mais le roi des arènes ki nga xam moom la Sénégal gépp bëgg imaam a ko tudd eh sandam la dañuy jox addiye de barke Seydina Mohamed bu loolu wéyee bu loolu wéyee dama tiitaroo ci moom day tiitaroo ci moom jàngal suma kër euh, ñëwaat këram jàng fa alxuraan jël na fa yar Moodu jël na sa kër ga yar jël na fa teggin jël na doom yaa yaayam nag jur doom nag yaay ku mu jur ngoone di ko jur bu juree nit bu juree nit bu barkewul bu amul barke am na fu mu jaar Modou Lo sa yaay Ngoné a bu juree doom te barkeelu doom ja am na fu mu jaar fu mu wóor te jaar xam nañu lu mu dëkk woon li mu liggéey ci interdit si quartier bii xam nañu xam nañ ko ñu ngi koy ñaanal yàlla si barke alxuraan si barke laa ilaha illallah yar gi yar na yàlla na nga ko continuer te day continuer nag ñun ñëpp dañ lay tiitaroo damay ñëw mu ne Imam Ba damay ñëw mu ne ma Imam Ba sa jumaa ji rafet na de xanaa Modou moo ko tabax xanaa Modou ko tabax ñu ne ko waaw Modou ko tabax kay mu loolu sutura la xam nga loolu xam nga loolu am na ku wax léegi fermé leen buntu bi am na ku wax léegi nañ tëj buntu bi pour xale yi pour xale yi bàyyi rek bàyyi bàyyi rek yàlla moo koy may yàlla koy may nit bàyyi rek bayre ku yàlla may bayre ku yàlla may bayre fu mu dem am ñu nit ñu topp ko force xale yi dugg loolu def si barke alxuraan ak lu mu def ren déwén si barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam moo du yàlla na ko yàlla may la loo xam lu ëpp loolu ba am loolu def fi ay milliards si jàkka ji fekk jàkka na du fekk jàkka bi rek de. fekk jàkka quartier bi yëpp moo ko def. kenn ku ne am fu mu la dugal. si barka alxuraan ñu ngi la koy ñaanal yàlla. si bi ni la jàll si la jàmm sa néegub yàlla bii ak si la jàmm yal yàlla fay la yal yàlla sàmm la nee na surtout ni nga mel waa dëkk bi ñoom xaaji Malick Maodo bi nga xam ne ñoom yéen a doon nekk ak ñoom ëmma male ak ñii ñoom Habib sëñ Habib waran ngaa rëy ci ñoom. nga bañ nga romb di leen romb de gauche à droite di dem ca yoon. parce que amul. parce que amul. ku amul amul jikko. bilaay ku amul doo xam jikkoom wax nga dëgg de. ku amul ku amagut dara. amul jikko boo amee. boo amee rek changé woo. soppeeku woo fuuyoo fuuyoo. kooku nag mooy nit. mu ngi koy ñaanal yàlla. ñu ngi lay ñaanal yàlla. ci barki néegu yàlla bi. si barke néegu yàlla bi si barke waxtu wi yal na yàlla sàng la ak mbalaanum sutura aar la suturaal la lu mu am njaboot ak alal ak lislaam yal na yàlla defal la ci barke si barke alxuraanu karim waa jërëjëf euh, euh, imaam imaam sunu Moodu lu ñun doy nañu sëkk sàkkantumaak bi mu partagé ak ñun lépp lu mu am fu nu ko fekk lu ko yàlla wërsëgale Papa Sow mu bokk kook ñun fii gars yi fi toog ñëpp am na si ñoo xam ne kum si xam sa soxla bu koy faj doo ko yëg li ma lay wax nii ñoom ñëpp xam nañ li ma wax la muy def ci suuf bi te kër yëgu ko moo ëpp doole fii mu toog li muy def te li mu boot dafa bari ndax jikkoy président lay doxee ndax li mu yëngu sport la te bu sa jiitee ñëpp kon li ko war bari na loolu loo sira yal na yàlla sàmm la ñu nga def sa kër bàyyi gee rek doy na sëkk jël say mag ñëpp nga gën saa doon gone uuf leen ñoom ñëpp gérer leen ànd ak ñoom ci jàmm kenn déggu fa bruit mën na faa jóge góor gi andi ndax boo fa nekkan di xaj-xajloog ñoom sa kër ga wala nga fay xëccoog ñoom kon heure bi kër gaa nga am di tàkk ko fay waaye kër ga yama nga sama yaay ngóor a jóoba fa ne kenn mosu faa dugg ni nan dem atta kër Modou Lo ñoom nga loolu nag li la ko may mooy nii nga mel nii da dem a dem a dem dem ba nit ñi dañ laa ruus man mi di wax ak yow sax ruus laa tax ñaanatuma la xaalis barke sëñ Babacar Si barke sëñ Babacar Si papa mi ngi nii toog maa ngi nii toog déggatuma ma ne ko dërëm dama koy romb romb ma rek ma ne ko sawa te xam na nañ damaa soxla xaalis non moo doon leen ko gën a xam am na ne lépp bi nu mujjee bi nu mujjee gisee si daayira bi bi nu mujjee gisee si daayira bi Serigne Ndiaye wax li ma ne dama bëgg ngeen tare sax dañ ko jël deuxième femme bi ma koy takk yëg na ko te xam ne damaa soxla xaalis mais rus naa koo ñaan ndax li ma defal ci ay mbégte duma yi ma dumaal yi ma bëgg mu dumaal ma leen moo tax ma kontaan ba talatuma koo laaj fi tu loo ma jox ak loo ma joxul léegi baax la yal na yàlla sàmm la lii mbégte la rek Samba Ndiaye man moom ma kàddu gi nag dañ ma doon wax loo lii ma si wax na sas ko si ah, Ibou ñu ngi lay nuyu taaw bi yaayam bale toog Ibou Diouf mën na ko bëgg a def nga ne ko yóbbu ko dëkk ba Taïba waaye dafoo ko Diouf ba Ndiouga seen loxo génn ci ndax Modou lu muy bëgg a def day woo ak yéen yàqu leen ci dara waaye lii ngeen ko ànd ak moom mu def ko fii fii mu ko def nag fi la ko war a def bàyyam ba miin na jataay bi te fii ñuy tabax bu fi nekkan tey dërëmam du ko manqué fekk pariwut du bàyyi kon Modou Lo néeg baa ngi nii bul bàyyi commencé nga commencé nga bu yàgg waaye gën na la yokk des na de Samba Ndiaye nee na des na Hadji Malick des seen doom a ngi nii kon wax ngeen ko ni ko des na muur dégg ji des na andil nga ñu oto andil ñu xaalis waaye na xaalis bi gën a gën a bëri ndax du doy na trop Aziz nañ ñu baal àq waaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu اللهم اني اسالك بحرمه ايتياتك بحرم ما خلقت بالطول والطول والكتاب المسلول والبلاد المنصور والبيت المحمود واستغفر المغفور بار المغفور بحول يوم يسر باذن القلم بهجاب الارض بهجاب الارض بهجاب الارض فك وستر بها ولم ياخذ يا جد ولم ياخذ الجديد ولم ياتك الستر ولم ياتك الستر رب انزل هذه المكان هذه المجله سترا دائما يا جبل يا جبل يا جبل يا سمر يا واسع المغفره يا باسل اليدين برحمتك يا سميع كل نجوى يا متعب المستقبل يا كريم المستقبل يا عظيم المن يا مجد الاسرار يا مجد الدنيا يا ربي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله يا نبي الله يا دعاء الله يا بن مساكين يا سابق يا بن فاطمة بنت رسول الله أسألك الله سبحانه وتعالى بلال بل إن مع من أراد شيئا أن يقول له كن هذه الدعاء أجبني بجال ما بل تبدين وبيك على الوجه بل لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله بل روض الرسول بل روض الرسول

bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin